jërë ngeen jëf euh, yéen a ngi ci Aladji Malick TV tey ji ci buntu Tivaouane am fa accident boo xam ne bu méttee métti la boo xam ne bu doy waar bu yéeme accident boo ba nag ngeen gis ko noonu ab biis boo xam ne euh, moo doon génn Tivaouane ma nga jóge Ndakaaru euh, romb Tivaouane nag bi muy dem ba jub jàjjin ngeen gis ko yaajin ngeen gis ko bu baax a baax mu nekk loo xam ni lu doy waar la ngeen gis oto bi noonu biis bi mi ngi noonu daanu policier yi nag ñu ngi wër li nga xam ne mooy oto bi di ko jiima yëkkati ñu ña fa nekkoon di ay témoin nag xam nañ la ni accident bi nekk na accident boo xam ni ah, bu métti la bu ngeen ko xoolee bu baax a baax lu toll ci ñaari nit gaañu nañ ci sensé juróom-ñetti nit ñoo xam ne blessé nañ blessé yoo xam ni yu jéggi dayoo la loolee mi ngi am ah, fële ah, bu ci yoonu Pire yi nga xam ne booy génn Tiwaawan rek mel ni ku wuti Pire ah, ci dëkk buñ naan jàjjin nga xam ni mu nekk accident boo xam ni bu ngeen di gis image yi ngeen xam ni daanaka duñ leen mën a wan yenn image yi liñ ci am rek lan leen mën a wan ndax daanaka am na yenn yoo xam ni di ko bàyyi xel day am solo bu baax a baax ngeen gis ko noonu Euh, ñu ngi noonu di ko yëkkati oto bi mu nekk euh, loo xam ne ab biis la euh, boo xam ne biis boo xam ne dafa doon moytu benn xale bu jigéen boo xam ne maanaam xelam moo xaw a naqari maanaam am feebaru xel xale bu jigéen bi nag biis bi doon na ko moytu pour la première fois maanaam ba xale bi wàcc bi biis bi demaat rek ci la xar bi tourné ñëw mu doon biis bi doon moytu dal ci lu mel ni aw xeer daal di daanu ci sensé nag kila Euh, ñaari doomu aadama gaañu ci sensé juróom-ñett ñoo xam ni am nañ ci ay blessé mu nekk loo xam ne lu métti la du doy waar ngeen gis bis bi daanaka yi ñu ngi koy yëkkati euh, sapeur pompier ñoom ñëpp daje woon fa am taxawaay boo xam ne tamit euh, bu am solo la bi nga xam ne def nañ ko ci bii jafe-jafe nga xam ni moo dal ci buntu Tiwaawan dinañ leen toppal information bi laneen luñ ci am rek danañ ci dikk ci Aladji Malick TV jërëjëf